loolu mu ngi nekkoon 2020. est-ce ba mu defee lu ma def ba pare dem yoonam ne ma carrément li ma fi def foo ko mënti wax ci àdduna kenn du la gëm ndax instant bi même boo demee porter ma plainte tamit.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 ma ñëw jël samay bagage damaa bàyyi ba xam ne sama patron dem na si beneen kabin bi ma woote ci fii bi ne ko an ana Fina mu ne ma ne fi mu ne xaaral ma profitoo dem ndax balaa Fina di ñëw ma dem foofu noonu jël samay bagage jour boobu sax ma ak fii ay guddi laa fa lii ay ci ngoon sooy laa fa dem toog foofu ci ay clinique boobu yëpp Fina mu ngi ci cabine bi daa ñibbi woon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 parce que dañ doon def ay massage corps à dañ doon def massage deux pièces doon def lépp foofu noonu mu ma yooyu yëpp amatu fi massage corps à corps cuuñ amatu fi deux pièces amatu fi yéen ñi fi amoon yëpp amatu fi léegi tonifiant la ñuy def relaxant savonnage ak jacuzzi mu ne ko jacuzzi bi mu ngi am ba léegi de ci jacuzzi bi des fois da ngay tase koo xamante ne dalay làmbatu nekk ci biir jacuzzi bi def tuuti di la làmbatu mun na mënoo ñëwal fii nii sax léegi weer laay fay.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 wax ki nga xamante ne mooy sama frère bi pour pour mu ñëw jël si ma ñu dem hôpital bañ demee hôpital tamit ñu def ay prélèvement docteur bi ne ma ndax da nga doon jël ay pilule ma ne ko déedéet mu ne ma mu jox ma beneen pilule ne ma beneen lii nii bindal ma ci feuille ne ma tu risques de tomber enceinte wala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 je préfère garder loolu pour man. waa kii bu njëkk tax jiituwoo ci police avant ngay njëkkee prélèvement Grand Yoff parce que d'habitude procédure bi loolu la da dem ci yoon yoon yóbbu ci euh, orienté la vers un hôpital. boobu mu ngi nekkoon mu ngi. toll woon non loolu. waaw waaw d' accord léegi on on reformule la sama frère bi comme ni ma ko waxee woon rek balaa ngay dem police ou wala ngay dem gendarmerie il faut nga yor ay preuves moo taxoon ñu décider dem fii nga xamante ne mooy hôpital Grand Yoff. Ahmed Mbaye. Mhm. mën naa wax ne mën naa wax ni sax ndey ak rek lañ bokkul.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 am naa mbégte trop trop trop